état du Sénégal SOMISEN bi nga xam ne ñun noo fi nekk amul benn société buy exploité diamant fii ci Sénégal diamant nag euh, bu amoon Sénégal nu exploité ko njariñ lay doon te buñ defoon recherche tamit gis diamant it dinañ war a sawar lool pour exploiter mais damaa bëgg tamit ngeen jàpp ni euh, Sénégal pression yi nga xam ne ak température yi nga xam ne mooy waral nga mën a am jamaa ay 1000 degré te pour jamaa nga mën kaa am fii ci Sénégal dina jafe lool ndax ban dalee seet boobu ba léegi ci wàllu géologie muy mission yi ñu fi def depuis 1911 sax laay wax ba léegi nii amul benn yoon benn yoon bu nu gis fii ci Sénégal ab xeer bi nga xam ni moom mooy waral boo gisee xeer bi nga ni kon jamaa ma kon xeer bii tax ñuy am jamaa fii ci Sénégal amu fi